sénégalais yi dégg a baax li nga wax ci le cas de Pam Bab Aly Niang ak li nga xamante ne moom mooy Walfadjri mais ñu dugg ci beneen sujet euh, euh, la corniche maanaam ci euh, le littoral par le ah, moom moo war a dakkal loolu ah coow li bëri Abdou da yaakaar ni est-ce que nekkul loolu maanaam abus de pouvoir là wala seulement que monsieur le président mi nek ci euh, euh, droit non loolu du abus du pouvoir loolu euh, Pierre Goudiaby da fay ñew mhm. dévaloriser l'institution de la République mhm. Pierre Goudiaby Atepa mo doon def demb prestation serment pour wan gars yi moom moo falu parce que fa ñew prouver leen ni ki fi tok mako fi tek non c'était c'était encore là ça c'était Pierre Goudiaby Atepa moo doon wane puissance am parce que kenn na fi mm. ça fait kii mm. euh, euh, kii émission point de fa la waxee loolu. Mm. président de la république délégation solennelle a génn conseil des wala muy Pierre Goudiaby dafa ñëw wan leen ne ñi fi toog maa leen fi bi ko Pierre Goudiaby bi génnee rek. parce que dafa am volonté manifeste parce que Pierre Goudiaby moo fi teg Ousmane ñëpp xamoon nañ ni Ousmane Sonko alliéem la. mais après ministre bi ñu fale de l'urbanisme bi ci cabinet lay liggéey balla bi fa Boubacar Camara jógee ministre boobu sant foofu na donc mm-hmm. ministre de l'urbanisme et de l'habitat lañ ko jox te ku xam Pierre Goudiaby Atepa xam ko affaire corniche bi ak affaire kii moom moom corniche bi su Wade su moom ko def ko propriété personnelle am lan moo tax Pierre Goudiaby Atepa jël primeur boobu c'est parce que loolu moo taxoon mu dugg ci xeex bi léegi Pierre Goudiaby Atepa bobu bu taxawé télévision lu toll ni état du Sénégal lu toll ni la république ak les institutions de la république mu yeewu tok mom RTS lo xamni ne sax ci këyit mom mu xey si wax ko ci presse donc Pierre Goudiaby Atepa dans les normes état du Sénégal mom la waroon njëkk recadrer su dee ni ni, tey su dee ni nii du deuxième président de la bokul ci président de la république mom mom Pierre wa parce que loolu la jappé boppam dafa jàpp ni ni mom mo len fi tek gis nga rupture dëggantaan yi foofu la wara a comment njëkkee les vraies ruptures moy leur collaboration ak leur bailleur parce que ñi fi jot a jaar ñëpp ku ci mësa a ak président rek dem ñeu rangé dans l'opposition père Goudiaby loolu moo ko yóbboon ci Ousmane Sonko biko père Pierre Goudiaby waxee man dama defone dañuy genn taxaw ne état bi mu ngi ci liggéey mu ngi ci mu ngi ciy waxtaan jël c'est pas officiel mais ñoom yemuñu sax ci officiel dañoo wacc dem sur le terrain wane ni Pierre Goudiaby pas mom lu wax mom lañuy ñuy def keroog gis na fi ay sirale woon xaw ma ñenn ñu ñu recevoir mais ñoo ñep xam nañ seen relation ak Pierre Goudiaby pas aujourd'hui Pierre Goudiaby pas mo nek di wane ni mom mo fallu mo tek président té lool dañ ko wara dindi les premières ruptures fofu la wara joggé parce que wad dafa am ay bailleur ñu ko jëloon otage. Abdou Diouf ben moment yi dafa am ay bailleur yu ko otage ak yenn industriel yu maki tay buñu bu ci Ousmane Sonko loolu la wara a dindi les premières ruptures moy loolu moy wané ni ñom sen ben patron lañ am moy le peuple sénégalais parce que ñu ngi leen élire d'une manière référendaire loolu motax Ousmane Sonko warul am grâce le gouvernement de de palais warul am grâce moi je suis pas d'accord ñi naan dañu war am grâce 100 jours une opposition républicaine buñ doon une opposition républicaine ñom ci lañ soxla grâce mais nous, nous def opposition républicaine Ousmane Sonko et Dioma Faye étaient des lanceurs d'alerte c'est une première décision pour protéger les lanceurs d'alerte c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est pas impertinent ah non parce que Ousmane Sonko toute sa vie il n'a pas été opposant il a été lanceur d'alerte activiste et après politicien mais Ousmane Sonko lanceur d'alerte alerte lan la alerté mo alerté que ni député de duñu fay qui était le premier lanceur d'alerte du Sénégal depuis suul kii kan

complice yi rek ñoo grâce si c'est parce que Macky Sall et Ousmane Sonko peut être am na entente. mais ab suba la un mois ça au moins. amul grâce waruñu am grâce Lui grâce y' a certaines choses qui n'ont pas besoin d' d'abord. Lui grâce. xanaa boo faloo sañu bàyyi sax nga nga amul loolu say c' pas amul amul amul waruñu am grâce ñeneen ñi sax mënoon nañu ko am mais ñoom waruñu ko woon am parce que nous, ils avaient des dossiers en main ils étaient des lanceurs d'alerte. Moi, moo tax bi ñu yegsee lu ñu njëkk lu njëkk a daw protéger du lanceur d'alerte parce que mhm. ils étaient des lanceurs d'alerte xam nga amoon ay politiciens idéalistes ñoo xam ne ay libéraux ay këri communistes yooyu lañ gëm am na ñoom loolu lañ mais loolu c'est caduc hmm. Ousmane Sonko lan moo ko dugal ci seen politique bi lancer alerte ci député yi du ñu fay impôt lu ko siiwal du loolu lañ ko génnee dàq ko mhm. impôt domaine waaw mais biñ ko dàqee ba léegi l'an après Petro-Tim bi nga ma wax nii ci Atepa mi Ousmane Sonko moo ñu waxoon ne Atepa moo fi indi Franck Timis c'est même Atepa et ce même Atepa aussi tamit dafa war a ñëw ñu problème boobu Ousmane Sonko moo ñu ko wax ci livre solution Ousmane Sonko moo ñu wax Youssou Ndour du fay impôt remise gracieuse yi Ousmane Sonko moo ñu ko wax moo ñu wax waa que ñoom Boubou Ndour du ñu ay faykatu impôt remise gracieuse yi ñuy dundee jaarul yoon Ousmane songo moo ñu wax sept cent et quelques yi ñu waroon dugal fii. ci impôts yi ñu ngi koy jox ay ay groupes mais loolu lanceur alerte la woon Ousmane Sonko moo ñu wax ni nii faire bi liñ ci waroon am amuñu ko si lanceur d' alerte la woon. Bassirou Diomaye bi mu nekkee kaso sax am na ñu ko seet si foofu mu jox leen ay information ci ñu ñu mujjee defal remise gracieuse xaw ma ñaata milliards yoo xam waruñu leen ko woon jox. Bassirou jomay ci kasso ba ba fa nekkee. ay lanceur d'alerte lañu doon xam nga ñi dañoo déparé politique activisme ñi militantisme. mais ñom biñu ñëwé dans la scène politique ils étaient des lanceurs d'alerte. motax biñu yexé ñu bëgg indi yóbbu ñëpp ci lanceur d'alerte, mais lool amul ben, sens fi sans lanceur d'alerte première loi moo tax bi ma gisee gars yi sànni ko ma ne leen ñii dañuy liggéeyaguñu. c'est du tâtonnement les premières sorties. Euh, euh, un pays n'a pas besoin des lanceurs d'alerte un pays a besoin bi ñu yegsee lan la ñu waroon njëkk a def avant ñuy lancer alerte yi. Mm-hmm. mooy xoolaat le rapport avec la société civile. Mm-hmm. et les ONG. xoolaat les assises des médias. Mm-hmm. kan mooy journaliste le profil de journaliste. xoolaat les assises des médias ak këru presse yi. ñan ñoo nekk ak ñan ñoo dugg ci milieu bi ñan ñoo yàq milieu bi nous devrions les statuts du journalisme xoolaat carte presse bi l'école de la presse xoolaat nu accompagner les journalistes mm-hmm. mooy approprier les assises jël conclusion conclusions. mais loolu moo nekkoon avant lanceur d'alerte loolu mooy priorité société civile bi un guddi day la société civile suba mu nekk militant gannaaw suba mu bailleur de fonds gannaaw suba mu nekk ONG buy capter fonds de blanchir mm-hmm. loolu mooy société civile bi nekk Sénégal vrai toog muy dox c'est la société civile capter fonds organiser séminaires, organiser table ronde booy wër corruption demal faut mon organisation yi ma dit ay biñu bëggé regrouper ay fonds dañoo pour capter fonds comme ñun une bonne gouvernance ak transparence lañu une mais wër bonne gouvernance ak transparence da ngay séti ko ci ñom Birahim Seck ñoo ñu diko loolu l'état du Sénégal waru xol d'où vient l'argent de cette société civile mm-hmm. qui sont les ONG derrière cette société civile cette presse là qui n'est les champignons tout le monde sait qui journaliste ni ak chroniqueur pour les chroniqueurs, ils disent qu'ils que les mel ay ay ay activistes ils disent qu'ils mais la dit mais si on a une très bonne presse si on a une très bonne société civile lui est lanceur d'alerte lui lanceur d'alerte peut-être que Fadel Baro va nous expliquer d'abord ce que c'est que lanceur d'alerte parce que man Fadel Barro l'a dit et que même lui daf ko gis à l'étranger amna na ci doon di ci def ay formation donc pour man Fadel Barro a le mérite parce que forme bi mi waxee lanceur d'alerte moy sur l'éducation sur la santé mhm. sur les trucs mhm. loolu laa gis moy c'est-à-dire ken d'une organisation bu nek ci santé bi wala mu nek ci kii mu gis ni hôpital yi kat niñ ko defaree loolu moy lancer alerte mhm. mais lanceur d'alerte forme bi ko Ousmane Sonko doon defee ak ñoom Bassirou Diomaye ak ñoom président Bassirou Diomaye Moi, forme boo xam dañu am information am ci ay këyit am ci ay preuve ñu taxaw wax moo tax bi ñu ñëwee wax léegi pour ñu am grâce parce que ils ont les preuves parce que lepp lu fi Ousmane Sonko wax joxoñ la ak ak lu mu téy ma arrivé au pouvoir mais yalla nattu indi la au pouvoir yow da nga daan tuumaalaate bu buñu waxé nga né mënu mako joxé mënu mako woné parce que su ma ko wanee nangam yalla nak ñëw indi la nak légui nak né la kay appliqué ko parce que tant que Ousmane Sonko ñëwul Mamour Diallo man Ousmane Sonko motax benen beut la koy xolé Youssou Ndour ma Ousmane Sonko motax benen beut la koy xolé Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko motax benen beut la koy xolé Aliou Sall Ousmane Sonko motax benen beut la koy xolé mais parce que ñooñu ñep tayiru Sarr Ousmane Sonko motax benen beut la koy xolé mais ko dafa soxla grâce des dossiers que tu remets à la justice dafa laj xaar luñ ci xaar grâce amul grâce warul am grâce ba pare sax bu doon sax da ngay wax grâce mais dès l'instant ma opposition bi taxaw sax ni nopi quand Ousmane Sonko a fait un revirement wax waxet ci appel à candidature bi toute l'opposition wara a parce que lan moo fi jëlee Macky Sall lan moo démarré opposition Macky Sall Sall bi muy doog a toog lan la wax su ma jëlee sama mandat. Mhm. dama koy wàññi cinq à sept ans wàññi indi ko jëlee ko cinq ans indi ko sept ans mais bi Macky Sall génnee lii pour ma def ko damay dem laaj ko conseil constitutionnel si la ñu dem tàmbali ak moom. Mhm. gars yi tàmbali mais man ci membre fondateur Gor sa wax jalaa laa bokkoon. mais l' appel candidature bii mu renoncé renier ko. Mhm. amul lay amul apologie. amul certain amul rien. kon gars dañu n'y a tàmbali ko ku commencé. mais mais dans les normes tout le peuple parce que Ousmane Sonko était membre des assises Ousmane Sonko a participé dans les assises nationales en tant que syndicat fofu la wax de jógee assises nationales nous ñëk wax sur appel candidature des postes xamnako na nañu ko am ak gis yu journalistes yi ñu yoni ci télé yi ñuy dem diko layal di def apologie non li Badara Gadiaga wax la gëm. Hmm reniement ak revirement ken warul toppatoo apologie bi lolu ken warul reculer ci parce que vous avez parce que Ousmane Sonko tamit nan la opposé wo ba jëlee fi Macky Sall Macky Sall que hmm. temps Ousmane Sonko huit midi treize h quinze h et que moi, am une opposition au lendemain dès que mu jot signature moy tax ñu nek ci bonne gouvernance lu pourquoi même président Macky Sall a sacrifié son parti

mais pourquoi parce que ñu ngi présent tous les directeurs yi Macky Sall nommé woon dañoo woon remettre démissions démission loolu mooy jom CES ñu si wàllu boppam ak conseil constitution ak euh, ACT mais ñooñu ñëpp dañ japp ni ça c'est c'est budgétif foofu Ousmane Sonko dafa war a génn après xamal lu tax ñom référendum lañ leen falé c'est un peuple mu jub parce que li tax mu jub moy Ousmane Sonko mo leen doon alerté ni les li baxul li baxul li baxul ni nommé baxul mais man personnellement appel candidature le clientélisme politique qui fonction publique bi man pas japp ni ni problème bi le problème du Sénégal c'est le clientélisme politique appel candidature mais s'il le renonce de tout dara